di ko yeesal ak yeesalaat ci boole gim ñu boole ci lislaam euh, lislaam moomu nga xam ne anam yi nit di dunde yépp digganteem ak moroomi jaamam ak digganteem ak li yàlla bind lépp lu ci nekk nos na ko nos goo xam ne léeg-léeg ak dégg moo ci àgg waaye lislaam amul fenn fu muy dox ba yàgg mu ne ma fii na euh, bokk na ci yi nga xam ne mu ngi ci biiram lu ñuy wax jikko jikko nag boo ko déggee mooy jëflante gi nit ki di séq ak yi nga xam ne yàlla daf leen koo bind yàlla da leen a bind ak ñi nga xam ne yàlla daf leen a bind yi yàlla bind ak yàlla bind muy nit ñi ak ñi ci des ñépp ñi nga xam ne yàlla da leen a bind te defu leen ay nit yii ay garab la yii di ay bahiima lenn lu ci nekk lislaam joxañ na jullit bi ànd na muy jëflante ak moom ci tënk yonent bi sallallahu alayhi wa daana def bu daan yàble ci xare ya daana dénkaane bu leen dagg garab bu leen rey bahiima ndax ñooñu ñépp a bokk dañ leen fee war a bàyyi wala boog ku ca am yitte ju ko jar mu jëfandiku fa la ca des mu bàyyi ko fi ñeneen waaye bu dee jëflanteek nit ñi it jikko da cay feeñ jikko nag bu dee ci wax mënees naa xam li ne ci biir nit ki bu dee ko yor jikko ju rafet saa bu waxee rek wax ju rafet rafet lay wax saa bu am nattu daanoo ci kaw nit ñi it wala mu daanoo ci moom it ci boppam wala ci njabootam walla lenn wala ñum xam dana ko muñ muñ gu rafet waaye suñ demee ba ñàkk déggoo amit ci ab diggante euh, fekk kenn ku ne ci ñoom ñaar moom ak ñam ko siqal wala kam ko siqal lu leen defarewaat day yomb lool ndax kenn ku nekk day génne jikkoom ju rafet la muy génne moo tudd jikko waaye rafet ga mooy tax ñu xam ne kii li na ci biiram lu rafet rafet lu set wécc la tey nag dañuy ciy tànn ci jëflante yooyu nga xam ne jikko daf cay feeñ benn boobu ma ñaareele dama ne buy wax wax ju rafet bu am nattu ñëwee nattu ba ci lu mën a jëm mu muñ ko muñ gu rafet am nattu nag tey dañu ciy tànn rek benn muy suñu diggante ak ñi nga xam ne dañoo am wéradi bokk yi ñun seetlu nañ ne ci suñu jamono li nit ñi gën a sawar mooy jaale ji jaale moom danga fa gis mag da fa gis ndaw da fa gis ku yoru dara ak ku bari la lool te moo ne jaale ji day li muy baax baax amulut njariñ ki nga xam ne moo fi bàyyi ko te mën nga fa gis ku nekk mu indi fa lu ne moo ne am nañu nit seenu tab bala nga koo xam rek ñu ne diw bàyyi ko na fi ca ba ñuy jaala ji rek ngay xam ne kii ku bari la rek te ku tabe la waaye nag alalam ci njaal dong lay génn kooku moom yàlla bu ay tànkam jegee lool yàlla yéex a génn <clears throat> kon tey dañu ciy indi rek tomb yuug yuug ci wolof mooy seeti ku wéradi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lim limaale ko ci ne ci juróom-benn yi nga xam ne jullit bu nekk su ko xamee su ko xamul war na ko digganteem ak moroomi jullitam ay mbokki jullitam limaale na ca seeti ku wéradi daf ne jullit bu nekk ameel nga sa mbokkum jullit juróom-benni xàq ñu ne ko yow mi yàlla yónni aleyka salaatu wassalaam juróom-benn yooyu yumu mu ne foo tasee ak moom balaa mu laa nuyu na nga ko nuyu bu la jëkkee nuyu it jëkk la ca bu la nuyoo na ko fay ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha aw rudduha kon lii ko yonent bi joxañ ne boo tasee ak moom nga nuyu ko sunna la ñaareel bi it su la wooyee walla mu ñaan la dara bu la wooyee nga wuyu ko bu la ñaanee boo yoree nga may ko bu la wooyee nag ba ci suñ jamono am na ñooñ duñ jël téléphone keneen lañ koy jox su ne car mu yëkkatiku ne kooku mu ne mën a diw mu ne diw ca dëkk ban mu ne diw ca dëkk sàngam mu xool kami woo su ne su dag-dagalee bopp jóge ci kaw jëm suuf ñu xam ne waaw la mu ne ko xaaral ma jox la ko su tàmbalee nii jëm nii mu ne déedéet mu ne ko daa mel ne da jàpp woowaatal ci kanam boole na bañ a jëfandikoo sunna ñaareel ba it wax na lu amul ndax daa jàpp te fekk deful dara mi ngi toog jàkkaar la moom waaye da ko bëggut a jël rek ndax ay sababay tax moo tax su la wooyee wuyul bu la la ñaanee boo amee nga jox ko su ñëwee it na la moo ñetteel bi su ñëwee it na la damay dugg ci nangam bëgg kuma laa biire it seetal bu doon yow nooy def nga nekk su doon mën a ma def nangam su defee baax na su defe su defut sa jaan wàcc am na fii ci dëkk bi sax kilifa gu mag goo xam ne rahmatullahi alayhi ku masa laaj loo xam ci nangam soo ko nee loo def baax na wala noo yaa ko sañ duutu la laaj dara duutu laaj xalaat ndax danañ kii am xelam nàccut mën naa juum juumaale ma ñett bu la sakk bu sakkoo ci ak lay biire ci nangam sa kem kattan nga def ko ñeenteel ba mooy su tislee ci sa kanam ne alhamdulillah ne ko yarhamukallah waaye su wéradee mooy juróomeel na nga ko seeti waaye su faatoo na nga bokk ci ñi koy gunge foofu tudd fi jaale tudd fenn jaale su wéradee nga seeti ko moo tax ñi nga xam ne dañoo daje woon ak yonent bi sallallahu alayhi ak ñu toppoon ci ginnaawam te daan dund na ñépp ñoom bu ñu gisee nit buñ ko yàggee gis yàgg jaxasoog moom bu amee ñaari fan gisuñu ko rek ñu dem laaj ta ba xam waaye saa su nekk ba jokkoo melagu nii mu melit saa bu ñu toll di ko ñaanal yàlla na ko yàlla delloo si jàmm ak di dem këram di nemmi ko ba xam gën nañoo dégg ci dara euh, gën nañoo dégg ci moom dara wala déet waaye bu fekkee mu ngi dund ñoom ci dëkk bi te dara jotu ko it léeg-léeg ñu dem nimmiku ko rawatina nag bu wéradee moom fam nekk njooxe lay def la daan def bu jëkk léegi nag day mel ne e, jaale ji moom moo ko yore te moo ne seete ko ba mu wéradee moo ko ëppal njariñ ndax ku tëdd benn bërëb lu mu def dañ ko ko defal mënalul boppam dara Eh, ab natt wàcc ci kawam ki jóg ak tànkam seeti ko mën na koo jural yaar bu njëkk bi mooy dana ko wettili wettili xol dana xam ne moom lii ko dalkat weetu ci nit ñi yenoon nañ ko ne moom na nag am ñu mu fa gis ñu ñëw ñoo ñooñu moom bu ñëwee xelam dana gën a dal ci jàpp ne dana jóg te bokk yi moo ne ñooñu ñuy am yaakaar ñu ci bari jaale ji rek lañ man waaye mënuñoo seeti am na ci ñoo xam ne rus nañ ko am na ñoo xam ne weesal nañ ko seen bopp te moo ne sunna la bi sallallahu alayhi wa def waaye dana woyefal mettit bi ko doon metti ba léeg-léeg ñu ne ko diwalay seet mu ñot ñoti ba seeti ku wéradi <clears throat> eh, am na lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te du waxe ba kanam nee na jullit bi su mbokkum jullitam wéradee mu bàyyi lam doon def dem seeti ko li feek muy wàññiku foofa lu mu sori sori ak lu yoonu gudd gudd ba ba muy dikk day mel ne kuy romb garab yi meññet yii te wuute lool benn bu ci nekk mu jël ci ab doom seex walla mu jël ab doom def ci si bi mu yor ba ba muy wàññiku noonu lay mel wala boog suñ ko mënoon a misaal day for ay kayiti xaalis ba ba muy wàññiku loolu yonent bi sallallahu alayhi wax waaye xadis ngi nii xadisul qudsi mooy boo ko déggee lu yonent bi jot li te fekk mu jóge ci yàlla te du alquran yonent bi na yàlla nee na bu yàlla yàlla dana jàkkaarloog nit ki wax ak moom foofu it tudd fi jaale ci waaye seeti ko wéri la fa la fa tudd nee na yàlla dana jàkkaarloog jaam bi ne ko yow day defe woon naa ne sama waay nga may sa waay ndax am na bis ma wére di ba ne laaj te seet si wooma mu ne ko ah ana nu ma lay seet see te yow doo wér doo wére di ni ñun ñaar yooyu du bàggante ci yow da nga ne koj ni nga mel rek mu ne ko xanaa xama woon diw mu ne ah kay mu ne ko diw de mas na laaj ba faatu nga dégg ko mu ne sa koñ ba te seeti woo ko mu ne ko nga ne mu ne ko moo ne boo ko seet woon fekk ma fa de moo tax loolu dama koy toppante ak yow yàlla nañu ci yàlla musal moo tax eh, bokk na ci ay ngëneel yu mu am day yombal aw lay ëllëg yow yowmal xiyaama di dagg ay meññet ci aljanna boole ko am lay rafet maanaam daal day feesal ay balaas bu ëllëgee bokk na ci lii di suñuy balaas bu ëllëgee yàlla ñu ci yàlla boole bokk na ci ay teg gi nii seeti ku wéradi nag bañ fa yàgg bañ koo sonal ci wéradi gi nu la dikki ak lu lay metti ak ak ak yu bari ak toog fay wax lu ñor ak lu ñorul ndax am na ci yooyu boo duggee ci wax ko mën na koo sonal lool te du ko mën a wax moo tax am na ci gaa yu baax yi koo xam ne ku amoon xel la fees dell ak ngëm yàlla akuk dëggu daa am gaay yu ko seet woon ne fa xam xamaaral di jël ca pom jañ fa indi di xar di lekk mu di leen xool ñu jël ca banaana ba di xolli di jël ca ndox yu sedd ya di naan ndax lan upp ku sedd ga fa nekk rek mu ne leen yéen kër da ngeen a mel ni ku ma seet si képp mel ni damaa nekk sama kër xanaa xamu leen ne ku wéré di laa ku wéré di kay boo ne jàng ba mu gis la rek tàggool te ñaanal ko yàlla ak saafarawu su fekkee nag wér naa ba ñëw sama kër lu leen neex def moo tax léeg-léeg yi nit ñi jël di ko yóbbu ci Euh, ñi wéradi ñi it ab coono kese la ndax koo xam ne ñi ngi ko sampal ay biteel xamee guddeeg bëccëg nga jënd doom doomaan yooyu indil ko ko mu di ko xool te du sa mën a jëfandiku di ko xaymeem loo te du sa mën dara ñeneen a ñëw di ko xool li ci kanama mu di ko gis lu metti la lu mat a bàyyi xel la ma itam moo tax bu ñu maasee xam ne seeti ku wéradi moom moo gën fuuf jaale ji ko yonent baa ngi nii sallallahu alayhi wa sallam mas na ne Abu Bakrin Siddiq kaay gunge ma fii kooku de moo ne yonent bi daa dégg ñu ne diw daal day dox ci naajo ba yàgg mu ne daal daanu rek xëm moo tax yonent bi jógee këram ba àgg ci kër waaja di ko seet kooku ku siiw la ci saxaaba yi Jaabir ibn Abdullah moo tax Sufyaan as-Sawri nee na as-Sawri nee na bokk na ci li ñuy tuddee ci gën a dof ci dof yi mooy koo xam ne daa seeti ku wéradi ne fa xam-xam maral toog fa di wax lu ñor ak lu ñurut moo ne Umar ibn Umar mas naa wéradi daal di cay def fatwa bu yéeme boo xam ne firi na li may wax lépp daa amu su wéradi benn waay ñëw di ko seet ne ko num la dale mu wax nu mu lay dikkee mu wax ba àggal mu ne ko sii yow dali la dal musuma dégg ku mu dal wér diw ak diw day moo leen rey diw ak diw moo leen rey moo leen semmal diw ak diw seen alal ja amaroon jépp jeex na seen alal ba ko jeex Omar ibn Abdul Aziz ne ko booy seetati ku wéradi la ca gën a gàtt bul ko tàggee kenn ndax léegi tey am xelam nekk ci ne moom kot du ko nettali te wér ak wér di ànd te léeg-léeg yàlla di nattu nit ki teg ko ay wéradi yu ndaw di xool ba xam fu ak miñam toll yàlla xam na ko waaye daf ko bëgg waar ne ko rek yàlla mooy yàlla mooy teg mooy teggi suñu demee ci alxuraan danañ ci fekk awala yaraw na annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayni summa la yatuubuuna wala hum yadakkaruun moo tax ñu baax ñi dëgg-dëgg ci masaan toog benn diir bi sa dara jotu ko eh, danaan mbaaru yàlla da koo fàtte mbaaru yàlla da koo fàtte diir bi mu toog dara méttiwu ko te moo ne fi ne natt boobu néew nañu ci mucc ci jamono ji waaye ku ci nekk day jéem a jëm di ko teggil boppam te xamu ne ci nattu ñu borom yi la bokk mooy dañ naan la lekk léeg ñëwal def bilan soo defee bilan danga nga cay xaalis ki nga ñëw ne ko defal ma bilan it day bëgg nga di ko fay di wéy mu naan ko nangamam ji sa nangam ji sa nangam sa nangam ji am na ñoo xam ne sax moo tax ñi mu ñoo defi bilan far dañ naan nafar toog rek ndax bu demee léegi tax ñu wax ko lu ko tiitloo ci ak dundam mu di ko xalaat ba faar duutu sa la jaamu yàlla moo tax bokk yi wér ak wéradi fi lañu ko fekk waaye lislaam rëddal na jullit bi ana bu wéradi amee nu muy def mooy jéem a muñ tey sant yàlla bu amee ku wéradi ku it mu bàyyi lañ doon def lépp dem seeti ko ñaanal ko yàlla te muñloo ko te def ci xolam xel mu dal mu koy wan ne ko lii kat jutawut ak wopp jotewut ak bakkan dara sax wolof da koy lépp wopp jotewut ak bakkan dara te bañ koo daw bañ koo seexlu bañ koo ñéeblu am na ñooñ ñi ma tudd léegi ne dañoo rusa seeti kenn rusa ñoo dem ci buntu hôpital ñu naan la koy seet nga naan xanaa xamu leen maay kan ba di ma laaj ma ku may seet te bokk yi nee nañ waroom xam-xam yi nee nañ nit ki lu mu bari bari xam-xam su génnee dox ki tànkam balaa sonn gis lu bari lu mu xamul lu mu doon lu mu bari la bari la alalit bu génnee këram di dox ak tànkam balaa sonn romb lu bari loo xam ne moomu ko te xamul ko ko moom it moo tax du dem ci buntu hôpital yi naan diw laay seet ginnaaw mi ngi koy seete rek xamagut kon xamut lépp waaye léeg-léeg mu laaj lu ko dalit ñu ne ko nangam ak nangam la mu ne yii loolu wéri dugg yi wàlla la daal di rey foofu sunna lam cay ragal kat du dara lu may dem mu di ko wàll rek muy gaaw a dee defe ne day dee te aw nit dal na leen ba tàyyi ñu jóg dem moo tax e, ñu jëkk ña yàlla na leen yàlla dool yërmande dund gu rafet lañ dundoon diine diine nag dund ko bokkut ak e, ni ñu ko xame rek nga xam ne dañ ciy seereel nit tamit dëgg naan ku fonkoon jàkka jala loolu dara gënu ko ku fonkoon jàng alxuraan la waaye loolu dara gënu ko bokk waaye loolu nag njariñ la dara du ko ci génn waaye yi ne li na ci biiram mu di ko génne ci bitti di ko jëflanteeg nit ñi tudd jikko loolu lañ gën a soxla ngir ñeneen mën ko caa roy moo tax seeti ku wéradi lenn la ci juróom-benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ak ju ab jullit gàll loola digganteem ak mbokki jullitam te du ko wàcc mukk li feeg mi ngi doon ab jullit ba ca jëkk mooy bu tasee moom na ko nuyu gaaw loolu ndigalu yonent bi sallallahu alayhi waaye suñ la su la jëkkee nuyu it nanga ko fay doonte da ngeen a séq yann yi sax loolu moom warugar la wu leen war yéen ñaar ñëpp waaye ñaareel ba it su la wooyee ba ci suñ jamono bu ñu ko gënee jegel si boo yoree téléphone te dégg muy sone saa bu la ko sa jot mayee jëlal ndax genn kilifaa ngi nii euh, yàgg na tuuti booba booba wootekaay yi ñu yor sax amagutoon booba yi ne ci kër yi moo am nee na daa tëdd ba ñetti waxtu munta nelaw ndax xamut suba fan lay war a aw ba am lu mu ndékkee moo ko njabootam fi mu ne gam diggante ñetti waxtu ak ñetti waxtu genn wàll te mi ngi toog munta tëdd téléphone bi nag kar ni mu xumbe noonu mu naan kii moom ku mu war a doon teema ko jël du ma ko jël ba yàgg mu naa jël rek daal jëfandikoo bu ñu la wooyee wuyul kooku ne gaawal damaa yàkkamti jëlal màndarga yi ma lay jox ndax boos bi may jël mi ngi nii di dikk jox ko ko ba noppi ne ko amul solo nag juróom-ñaar fukki junni dong la nanga ma ñaanal yàlla mu ne ko taxawal bala ngaa dem mu ne ko damaa yàkkamte mu ne ko taxawal bala ngaa dem ñaan yàlla gi moom jërët wax yow daal na la wóor ne bu may nelaw bu may yow bu ma bu may xoole nii maa ngi lay ñaanal bu may nelaw maa ngi lay ñaanal li fee yaa ngi seen nit muy dox rek jàppal ne maa ngi lay ñaanal kon bu buñ la wooyee wuyul ba yonent bi waxoon njariñam tàmbali naa ñëw te demaguñu àllaaxira waaye buñ la buñ sakkoo ci yow ak laabiire yi laabiireel ndax yor loo war a laabiri nit ñi xam-xam boo denc la te sëñ bu mag bind na ci benn téeréem ne képp koo xam ne lam xam da koo denc ba yóbbaale ko te laabiri wu ca kenn dana ko gis dana ko gis ëllëg fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa innahu qabla al mamaati yu bu talaa waaye ku nekk sa kanam it ko koo dendal wala nga dégg mu tisli na alhamdulillah neel yarhamukallah am na ñooñ bi fi sëñ bu mag bi nekkee dañ daan bëgg mu ne yarhamukallah am na ñoo xam ne buy ñëw dañuy jël xobu kaani ci seen jiba suñ toogee ak moom ba yàgg ñu fóon ko tisli ne alhamdulilah ca kaw mu ne yarhamukallah ñu ne amin mu ne waxal la cay topp ñu ne ñun koy loolu lañ bëggoon dégg dégg nañ ko te am nañ ko foofu it njariñ tàmbali naa feeñ ci jëfe waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku wéradi yi na ko seeti am na ku demoon di seeti ku wéradi yàlla dong moo ko fa yóbbuwoon ak bëgg a dund sunna ak fan fàggu tuyaaba ba mu demee fa mu doon seetee mu fekk fa kenn kuy seet si ni moom bañ génnee kooku ne ko yow laa doon wër fan yi yépp mun maa fexe ba gis la wër naa si numéro wër wër awuma ko lii laa la bëggoon a jox te yàlla rekk tax ba mu ko xoolee daa tudd yàlla ni lii de jaroon na seet si kii bu yàgg waaye su ma ko seet si woon bu yàgg du ma moom waaye li ko tàmbalee tey ku wér a su ma ko xel xam ko ma wala bañ koo xam bu soobee yàlla dinaa dem kooku it njëriñ li yonent boo xool ne day mel ne kuy dagg meññal ba ba muy àgg fa mu jëm tàmbali naa feeñ waaye su footoo nga topp ko it am na ñooñ soo leen gisee ca armeel yi Euh, sam xel dana dem ci de ndax da lay na ñi caaxaan génnewu leen seen kër yooyee ak su seen yu set dañ nekkoon waxantumaag denc ga ñuy denc ka ñuy denc ak nam toll yow ku faatu mën nga bañ yëg boobu yëg-yëg kon mbokk yi waxi yonent bi sallallahu alayhi wa noonu am njàngale ma nga noonu lislaam ma noonu ay jëf la gannaaw bu mu doonee pas-pas waaye ay jëflante la it diggante nit ak mbokkum nitam rawatina jullit ak mbokkum jullitam ma delluwaat ko mooy jaala ji lañ gën a fonk ndax mbooloo ma fay daje ci aw góor ak ku jigéen ak sañse yañ fay sañse am na ñoo xam ne moom lañ moom rek lañ man jaala ji dong lañ man mënuñoo seetu ku wérati yonent bi nag juróom-benn yi mu tudd mu doon xaq yu jullit bi warlu diggante mag ay jullit mbokk jullitam tudd ci jaala ji jaala ji ñu fàttali ne amulul njariñ ki faatu ñay dund la xaw a amal njariñ léeg-léeg ndax bu dee lu ñuy joxe ñoom lañ koy jox bu dee lu ñuy wax wax ju neex ñoom lañ koy wax léeg-léeg sax ñu dem ba fàtte ka faatu woon tàmbali faa def ab yebbi diw indi na nangam diw indi na nangam diw indi na nangam nuñ koy séddoo nekk coow ba bañ fàtte moom nga leen fa dajale woon li may jaaxale mooy am na dij bu amoon Tuubaa booba ñu tolloog ñun ay at seeni at bëreegut noona waaye lañ ca doon wax kenn fàttewu ko ndax doya dal faatu ak ñàkk solo gu ab dëj ñàkk solo kooku day ñëw ci ab dal fu ñu dalal gaaya ab dëj su fekkee dañ siy wut ay dal yi ñu dalal diw ñoom loolu nekkatul ab dëj mu ne ndax añ ndax ndékki ngeen ñu ne waaw mu ne lu ngeen ndekkee ñu lim yu bari yi ndékki lépp tubaarkal la mat na añ ngeen ñu ne tubaarkal yay topp ci añ ñuy lim yay topp ci añ yépp ba mu des warga warga wow nga xam ne da ngay baxal ndox sotti ci mu ñor ñu ne ko wow da ñëwagu fi yi ñu xamoon da fi nga xam da ngay jër yi tàngal ñaari baar ak ñetti baar waaye wow da moom amagu fi moom ne laa koy andi ngoon yi su jotee ñu ne kon ba suba kon ñëpp dañuy dajawaat léeg ñuy wootante ndax xëyagun nga mu ne xëyagu ma ne kon maa ngi fay jaar ñu xëy fa kañ lañuy fàttaliku ki nga xam ne moo moo dem kon loolu amulul njariñ ki dem ki ki dem moom la ko amaloon njariñ mooy ba mu wéradee ñu seeti woon ko defal ko dalal am xelam ñim jubawuloo wutoon sax buñ ko seetee am xelam dana dal ci ne kim séqaloon mbir jéggal na ko moo ko tax a seet kon boog yàlla na yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin